يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إن لقاهم نظرة وسرورا وجذاهم بما صبروا وجنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها سمسا ولا ذمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فدة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فدة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مذاجها زنجبيلا عينا سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا صدق الله العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo leen di nuyu nuyu ba gën a rafet diggante jullit ak mbokkum jullitam mu yàlla jàmm nekk ci yéen te nekk ci ñoom di am mbégte lool nag ci jataay bu tedd bii nga xam ni man nag ni li ko laytaay lépp lislaam la li ko laytaay lépp diine la mu bokk ci jataay yi nga xam ni jataay yu neex suñu borom la neex Cheikhul Khadim ngir lan dajale ak mbokk gisante waxtaan ci diine waxtaan ci islaam ngir yàlla ak jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mën nañ jataay bii dafa bokk ci jataay yi nga xam ni yu neex suñu boroom la ndax jataayu fàttaliku la teyit fàttaliku suñu boroom da ko digle ku dul fàttaliku doo sant te ku ni gore kon day mel ni sant bala moo mën a ci alquranul karim am na fu suñu borom di waxee ni soo leen santee ma dolli leen kon ki nga xam ni dafa yëg ni am na lu mu war a sante suñu borom yaakaar naa ne bi mu daataa sant suñu borom fàttaliku na kon fàttaliku lu am solo kon nag jataay bi day dugg ci biir njàngaleem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu muy loo am solo tayit thème bi nga xam ni mën nañ suñuy mbokk dañ koo jëloon ngir ñu war cee waxtaane mooy al alaaqa bayna Cheikhul Khadim relation bi nga xam ni Seex Xadim amoon na ak suñ maam yooyu di maami darman loolu yaakaar naa ne amut lu ëpp solo amut lu gën a ëpp solo ay ndaw yoo xam dañuy dañuy jóg ngir ko ndono lu baax loolu nga xam ni suñu maam yi dañ cee nekkoon muy gànjar bu rëy di lu am solo loo xam ni amuñu lenn ndono lu ko gën a rëy waaye bala maa dikk foofu dañ may may tuuti rek may dañ may dogal ngant mën nañ ñi ñu waxtaan ci def benn muqaddima ci lu ko jiitu rek mën nañ ni Seexu Xaadim mooy lépp tàmbali ci moom doy na ngëneel yam ci moom it doy na ngëneel waaye askan wi nga xam ni mooy al ansar ñu gën koo miin ci ñun wolof darman ñun wolof ñu gën koo miin ci darmaan ko ca tur wi ci arab mooy al ansaar damay tàmbalee foofu ci lu gàtt rek xam leen ci lenn ci lan mooy al ansaar mooy darmaan ko kenn ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni jóge na makkatal mukarrama ci gàddaay gi jëm si mu munawwara ñi nga xam ni ñoo ko dalal ñooñu la ñuy wooye al ansar ñi ko héberger daal kenn ku ne xam ne ni sallallahu alayhi wa moom tedd nga yëpp moo moom lépp mën nañu kenn dalalu ko sax ndax jëmm ji nga xam ni lu yàlla sàkk lu ne moo tax kooku moom mooy borom fépp waaye ci ci ci ci ci zahir rek ñi nga xam ni ñoo ko dalal bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayay jóge màkka ñëw mu ñëw madinatul munawara ñi ko dalal ñooñu la ñuy wax al ansar loolu nag di ndono lu rëy di lu riis loo xam ni ku ni bëggoon na ko bi nga xamee ni ñëw na ci gàttal rek madinatul munawara kenn ku ni kër gu ni da ngaa bëgg dalal yonente bi sallallahu alayhi mi ngi mel ni ñu ni woon eh, eh, sëriñ Cheikh Khadim wala sëñ Muntaxa ñëw na Kajoor suñ suñu dëkki naar yooyu rek kenn ku ne dangay ngay bëgg mu wàcc ci yow kenn ku ne bëgg mu wàcc ci yow wala doonte ñëw na ci benn dëkk ci dëkk yooyu kenn ku ne kër gu ni la ngay bëgg da ngay bëgg sëñ Muntaxa Mouhamadul Bachir da ngay bëgg mu wàcc ci yow te xam ne fu mu wàcc ci yow ngëneel la taw feex lay doon rawatina nag ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñëw Madina kër gu ne bëgg mu wàcc ak yow bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ak yow waaye ci njàngaleem yonent bi sallallahu nga xam ni képp kuy am yar wala képp ku baax ku ne yonent bi sallallahu alayhi moo la ëpp yar ndax moom wax na ni suñu borom moo ko yar adabani rabbi wax na ni suñu borom moo ma yar ba pare rafetal sama yar yi kon mën nañ ni mooy ki gën a ëpp yar moom yonente bi sallallahu waaye bi nga xamee ni ñëw na madinatul munawwara boobu nanguta dal kër kenn kër benn jullit bàyyi ka ca waaye dafa digle wax ni nañ bàyyi giléem gi nga xam ni moo sëf ay bagaasam bépp baar bu mu wàcc wala bépp kër gu mu wàcc kër googu mooy doon wàccuwaayam foofu lay dal waaye suñu borom ni nga ko defale kan mooy dara maa koy noonu la koy moom leen leen ko taw feex ñoo ko am loolu di lu bu ñu xoolee ni loolu day lu lu lu yàgg taw feex joo nga xam ni suñu borom da koo defal dara maa koy day lu yàgg ndax eh, kenn ku ne xam na ni amoon nañ maam joo xam ni dafa bari le woon niñ ko nettalee bari la lool ba bis nag mu jóg ni day xare ji ak waa Makka mu ñëw ba fii nga xam ni mooy madinatul munawwara mu yësal fa kenn ku ne xam na naar yi wala arab yi baaxoon nañ bu ñuy dem ci barab dañuy ngonnal fenn euh, di fa dallu di fa noppalu bi nga xamee ni nag ñi ngi dallu ci barab boobu nga xam ni mooy madina boobu tuddagut woon madinatul munawwara boobu ak euh, yasriba la tuddoon ca jamono yooyu lu yàgg yàlla def suñ maam jooju nag bori bu metti dal ko foofu bi ko dalee nag bari la woon na àndoon naa ki dagat ñu ni mu laaj ñim àndal ana sama gori bii lan moo ko waral biñ ko xoolee ñu ne ko ki nga xam ni mooy xeet li jaam ëllëg fii ci Yasriba mooy doon barabam fii mooy doon makkaanam nee suñu maam jooju benn benn bataaxel benn leetar wax ni maa ngi koy jox sama bopp ak askan bii nga xam ni ñooy sama askan dégg nañ ci e, naa Aliyu mu bokk ci askan wi mu wax ni mu ni ñuy donnante leetar boobu di ko donnante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw Madina ñu jël leetar boobu jox ko wax na ni biir bi nga xamee ni suñ maam jooju ci la bind leetar boobu ak bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Madina junni at la yoo xam ni yokkuwul dara wàññiwul dara kon buñ xoolee ni darmaan ko ñu yàgg a ñu yàgg a jaayante lañ ak nit ku baax ñu yàgg a jaayante lañ ndax ñi nga xam ne seen maam jaayante nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junniyaat te bi feeñagut ñooñu yaakaar naa ne kenn njëkku leen ci lislaam ku njëkkut ci lislaam ku ni kenn njëkku leen ci lislaam lool nag di ndono lu rëy loo xam ni bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee day mel ni noonu rek la ko yonent bi sallallahu alayhi wa ci gàttal muy lu rëy di lu la ca doolee muy suñ diggante ak Cheikhul Khadim noonu nag daanaka mën nañ ni ci la lenn ci waa Ansaar di di di di di gàddaay jaar ay Algérie jaar ay Égypte ñëw jaar Mauritanie ba ñëw Kajoor mën nañ ni suñu ndono foofu foofu lañ duggee Kajoor boo xoolee boo demee ay Algérie da nga gis nangam amaar boo jàppee yenn seen arab yi sax da nga ko ci gis nangam amaar da nga ko ci gis kon loolu moom lu leer la loo xam ne wane ni seen cosaan Madinatul Munawwara la jaar Mauritanie Mauritanie it mën nañu yàgguñu fa ndax ndax suñ yeneen mbokki santinaar yi nga fay dégg ñu yeneen santinaar yi loolu waaye naar bu sant Amar bu nekk Mauritanie doo doo ko dégg loolu la muy wane ni dañ fa yàggu yàgguñu fa yàggu boobu ba ni ñëwee kajoor bi ñëwee kajoor it eh, ki nga xam ni mooy ki nga xam ni moo meññ askanu darmanko gépp képp ku sant Amar man nañu Mouhamadou Lamine moom di naar bu xees pecc mooy ki nga xam ni moom meññ darmanko yëpp kooki eh, da daan def xar baax di ko def wax nañ ni da daan yor menn xar saa bu ko jëfandikoo ba pare dajalewaat yax yëpp bu ñu xëyee mu doon am xar loolu moom ay moo ji saat la karaama yu bari yoo xam ne ni ñu ko defee ba ni mu ñëwee ci dëkk bu ñuy wax jéemul dëkk bu ñuy wax jéemul mu def listixaara xam mu xam ni barab boobu barab buñ mën a jaamoo yàlla la mu wax ni na ngeen fi toog soo leen fi toogee liñ bëgg lépp danañ ko am ñenn ñi nag wax nañ ni ñetti fan ci muharram la am nañu eh, wax ni jiimul muharram am la waaye lu ci mën dal am ci gàttal daal suñu maam jooju bi nga xam mom nonu la ñëwé jéemu moom nak moom meñ bépp naar Mouhamadou Lamine bo déggee buñ né amma maa dikkee naar ba ci jéemul lolu moy li nga xam ni mooy li sabab nga xam ni maam yi ñépp la sur nous et sur ce que nous faisons en effet la situation des jeunes de Manco a vu le jour suite à une alliance de jeunes femmes unies par des liens de parenté et ayant une vision rassembler toute la famille d'Armanco dans l'amour, la solidarité, l'entraide, entre autres. En effet, ces femmes se réunissaient pour célébrer leur fête annuelle à l'occasion de laquelle elles invitaient tous les jeunes de la grande famille, hommes et femmes réunis. Conscients de l'importance de cette union, les invités ont rallié euh, le groupe pour, pour élargir le regroupement qu'ils dénomment Association des jeunes d'Armanco à Judée. Certes, confrontés à des difficultés énormes. Au point que certains d'entre eux ont cédé. Mais à mes de courage, d'abnégation et de volonté de faire la famille pour une famille réunie comme objectif. Comme toutes les associations, comme toute association organisée, la des objectifs à atteindre. Réunir la famille membre pour répartir dans les villages différents favorisés un rapprochement et une meilleure connaissance des membres de la famille. Promouvoir une meilleure organisation des magasins organisés dans les différents villages de la famille par une implication active des élèves et étudiants. Identifier les compétences de ses membres pour une mise en œuvre au profit des autres. Réalisation. Depuis sa création, la s'est lancée dans la perspective de, rapprocher les membres de la famille d'Armanco, d'assurer une meilleure connaissance des membres et de raffermir les relations parentales. Par ailleurs, la JD a réussi à établir une connaissance entre des membres de la famille longtemps méconnus entre eux, amener des jeunes dans le village ancestral pour favoriser la rencontre la rencontre entre eux et d'autres membres de la famille ainsi pour assurer une meilleure ancrage dans leurs valeurs. Établir des relations de solidarité et d'entraide par une prise de certains malades et par d'autres actes sociaux. Pour un peu résumer en wolof, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu suñ kilifa yi fi teew yëpp di nuyu suñ suñ papa yi suñu yaay yi suñu mag yi suñu rakk yi ak bépp mbokk bépp mbokk taalibe bu fi teew tey fii nii ci ndigal li ñu am ci wax ci turu association des jeunes de association des jeunes de mu ngi sosoo ci ay jigéen ñu booloo woon bëggante ànd dem ba ci taxawal bés invité ci famille bi yëpp góor jigéen ci loolu ñu gis njariñu mbooloo googu ak ànd gi doon benn gi

ba tey jii nii ñoo taxal bés bii ngeen gis tey jii kon jaarama yi comme ni nga ko mën a xamee tamit ci association bu nekk association bi am na ay mébét mébét yu bari bi ci njëkk mooy boole famille bi yëpp jeune bu nekk foo mën di nekk ak village boo mën di nekk foo bokk ñu fexe ba nga xamante sa frère wala sa sœur ngeen xamante yaakaar naa loolu luy tas famille bi la du du du looy tas famille bi la luy luy boole famille bi la association mu ci tànk yooyu noonu di waajal tamit muy màggal bu mën di am ak fu mu di nekk muy màggal boo xam ni si Darmanko gi la jëm ñu jëm faa teew wane fa suñu mën-mën ak suñu def-def ba xam ni seen jeunes yii nii seen gone yii nii di jàng ñu ngi leen di jëriñ ëllëg. association tamit des jeunes Darmanko bi mu créé woo ba léegi toogut di seetaan boppam croisé wul les liggéey na chaque jour mu ngi liggéey matin di soir. jot na fee boole ay nit ñoo xam ne mos ñoo xamante mos ñoo gisante ñu nekk ay xarit ba léegi ñu fondé famille kon mën naa ne ñun léegi ñaari famille lañu am ci famille bi dañ fa amaat biir ci biir famille yaakaar naa loolu bariwul lu muy am ñu ngi koy sante yàlla bu baax jot naa yóbbu tamit jeune ay jeune yu bari seen village natal ñu dem fa màggal teewe ko muy lu am am solo ñëpp ñu àndandoo dem senegal na ku ko wax wax solidarité ba tax na association des jeunes de Manko bàyyiwut benn yoon lu jëm ci solidarité mu ci doon bay waaram yónnee ci liggéey lu bare bare jàppale na ci ay nit nit am na ay tolof-tolof ñu dem taxaw ko lépp seen biir muy famille bi ma doon wax loolu di ko confirmer ginnaaw loolu nag association des jeunes de Manko tëjut portam ubbil na porte yi ñëpp muy woo ñëpp fépp jeune fi mu nekk association bi mu kenn moom ko yéen ko moom ñëw leen ngeen bay seen waar ngeen def ci li ngeen war a def ñëw bay seen waar ngeen def ci li ngeen war def association des jeunes de Mako mu ngi tijjul bopp mm, loxoom bépp jeune ak foo man di nekk ak di tàllal loxo suñu mag yi tamit ak suñu waajur yi ñu ñaanal ñu pour lii ñuy bébét nii mu jëm ca kanam jël ngeen jëf wa ala alihi wa ashaabi ajmain jërëjëfa sëriñ Touba mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñoo ngi leen di ziyaare te di jéggalu tàngoor wi ndax nga toog say kilifa toog nga téye leen ci tàngoor wi rek maanaam amuñu seen fay mais lépp sant yàlla la rek ndax lii ñuy def defuñu ko ngir kenn lu dul suñ bopp ndax képp koo xam ne da jug ngir taxawal lu baax sa bopp nga ko defal ginnaaw loolu ñoo ngi ziyaare suñu sëriñ suñu kilifa Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ndax Mbàkke Balla gis nañ keroog bi ñuy ñëw sa kër guddi na mais gis nañ ni nga ñu teeroo ni nga waxtaan ak ñun keroog bi ñu fiy ñëwaat tamit teeru bi ñu teeru waxtaan bi nu waxtaan ak ñun gis na ko loolu day wane ne oyof goo oyof parce que doomu aadama matul waaye nit a koy mottali kon doomu aadama mat na. ginnaaw loolu ñoo ngi leen di ziare di ziare sëñ Mbacke Fall di ziare ñi nga xam ne si ni ñoo fi teewal sëñ Muniru ku ci mel ni sëñ Ibrahima Amar ak ñi nga xam ne si ñoo fi teewal sëñ Axma ñoo ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen baalu àq ci kàddu yi ñuy jël ak tàngoor wi ñuy ñuy toog ginnaaw loolu dañ leen di tënkal rek ci kàddu ndax Seydina Aliou wax na lépp ñun nag lii bu ñu koy def suñ kilifa yi lañ ko defar ndax bu yoon wi leeree ñoom ñoo ciy jaar ñun dañuy topp seen ginnaaw rek. ndax ñun ñoom ñooñu suñ ñooy suñuy kilifa kilifa nag mooy jiitu ñu topp seen ginnaaw mais xëy na temps bi moo ko mayul ba waral ñun ñu nekk si si yoon wi di dox waaye am na ñeneen ñoo xam ne si ni ñu ngi suñ ginnaaw di ñu di ñu di ñu conseil ci ci lépp kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax mais ñëpp ñu ngi leen di seedeel ne am na mbégte ak contentement bu baax ci teewaay bii ngeen teew ginnaaw loolu nag. ginnaaw loolu bi ñu ko taxawee bi ñu ko taxawalee dañu cee woo ñun góor ñi nañu kaay leen ngeen góoral ñu. si dëgg ñu wax kunkaati man ma nga cay wax naan ma nga cay wax naan laa tastari dunya bi uxra yaa fata man baa nooran bi du jaa fasa yandam képp koo xam ne si ne da ngay sàkku xam-xam soo ko amee nangu ko té képp koo xam da ngay sàkku lu baax soo ko amee nangu ko téye ndax àdduna bii kat du dara. ku fi ku ku am lu baax foowee ko fi bu yow ma xeyaamee di nga ko rëcc loolu moo tax ñu ne suñu xam-xam bii nañ ko dajale téye ko niñ ko mën a téye nag muy ñu fexe ba boole mbokk yi boole ñoom ñëpp ñu doon benn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa rusuli kullu wa rasul lun wasilati wal أحمدنا الماء أحمدنا الماء ما مساء ولسوانا ساخ من أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكني جماله يصف فاد الرائي ونقجه يغني أن افتراي مدلنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لن يلام يسير خطيئة في كل سنه وخيره من خدمة مستحسنا لم يخف كوني مطول بإلى روضته والبيت سادا وإلى وعلى آله وسخب هذه الخروف ما يريد في مكة والمدينة بلا آفة ولا كدر فيه wala bayni wa bayna ahadin amin ya rabbal alamin af des na teñu tëgg ma neex da sa jàmba ñaan gàmmoog na rek tuba ba léegi nga xamee ba te set serigne sëriñ Cheikh soxna Bali Cheikh awo Balla Modou awo Balla awo Balla Kumba ñok mam jeng Warax mboj ma ngi le waalo wala bur jor na geet ba geet mag fi yabel dañ serigne mbacke soxlo sa mag je soxlo job Mor jandam ma sàmbakaat ndaak ndak ak marema xarimaam ak pen bu amin ya yàlla saa Fatma nan la ci duggé kilifa sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne moom la ñu àndal kàddu yi sax du gudd ay kàddu yu cant la rek ak kàddu yu ngërëm ci mbir moo xam ne jàppun ne dañ ko cee waaye da cee bokk di wax ne mi ngi am mbégte lool ci cëral gi ñu ko cëral ci bis bi nga xam ne ni ñu ko présenté rek ñëpp xam nañ ne yoonu murid wépp ñoo ko bokk ci loolu mi ngi sant bu baax mbooloo mi nga xam ne ñoo ko taxawal te ni ñu ko waxee li ko tax a lépp di fàttaliku ñenn ci ay mag yoo xam ne dañoo àndoon ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu sëriñ bi ni wax ne mi ngi gën a feddali kóllëre googu nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikhul Khadim ak suñu maam yu baax yi nga xam ne ñoom la ñuy defal mbooloo mi di doon ñoo xam ne ca ba ñu umpalee sëriñ bi ci boobu la àndoon ak moom ba kenn xamagul li sëriñ bi woote lu mu doon boobu la darmanko yi àndoon ak moom àndoon ak moom loolu ku dellu ci mbindum sëriñ bi ci bataaxal yi muy bind ak ndénkaane yi dañ ci fekk yu bari yoo xam ci turu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé nga xam ne moom la ñu àndal kàddu yi sax du gudd ay kàddu yu cant la rek ak kàddu yu ngërëm ci mbir moo xam ne jàppun ne dañ ko cee waaye da cee bokk di wax ne mi ngi am mbégte lool ci cëral gi ñu ko cëral ci bis bi nga xam ne ni ñu ko présenté rek ñëpp xam nañ ne yoonu murid wépp ñoo ko bokk ci loolu mi ngi sant bu baax mbooloo mi nga xam ne ñoo ko taxawal te ni ñu ko waxee li ko taxaw a jug lépp di fàttaliku ñenn ci ay mag yoo xam ne dañoo àndoon ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu sëriñ bi ni wax ne mi ngi gën a feddali kóllëre googu nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikhul Khadim ak suñu maam yu baax yi nga xam ne ñoom la ñuy defal mbooloo mii di doon ñoo xam ne ca ba ñu umpalee sëriñ bi ci boobu la àndoon ak moom ba kenn xamagul li sëñ bi woote lu mu doon boobu la darmanko yi àndoon ak moom àndoon ak moom loolu ku dellu ci mbindum sëriñ bi ci bataaxal yi muy bind ak ndénkaane yi danga ci fekk yu bari yoo xam ne googu di sant bu baaxit ñi nga xam ne ñoo ko taxawal te ñu wax ne ay ndaw lañ ndaw doon loo xam ne naka jekk dafa ma saam solo jëlale naa ci yoonu murit waaye lislaam rek li ci taxaw lépp luñ mën a wax ay ndaw ñoo ko taxawal ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu koy yebal gën na gut ci ak ndaw ci ay ñeent fukki atam ko yebal ki njëkk dugg ci lislaam ci góor nii ci ndaw ñi la bokk muy Seydina Ali bu ñu ñëwee fii ci yoonu murit Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi nga xam ne amuñu lu dul moom yoonam wi li muy rëy rëy bi mu koy woote ci fanweeri la toll loolu ci digg ndawam la ko wootee kon biñ koy jëlee fii di ko yóbbu ci géej gi ci ñeent ñett la toll ci digg ndawam la tollu ba léegi maam Thierno Ibrahima mi sëñ bi bàyyee woon yoon wi ak njaboot gi yëpp bi mu ko koy bàyyee ñaar fukki at ak juróom-ñeent mooy ci ak ndaw la tolloon moom it sëñ Mourou Moustapha radiyallahu anhu mi maam yi sëñ Cheikh Abdou mi di borom penc me gox bi yëpp bi muy njëkk a sanc ab dënk ab dëkk mook sëñ Fallou ci ñaar fukki at lañ toll muy 1912 yooyu yëpp day wane rek ne yoon wi yëpp yoonu murit yoonu ndaw la kon bu fekkee ay ndaw ñoo taxawal lii bu ñu góor góorgóorloo rek barke maam yu baax yooyu ak barke Cheikhul Khadim dana leen ci fekk kon sëñ bi mi ngi leen di gën a soñ bu baax ñu gën a góorgóorlu rawatina ni ñu ko présenté wax ne ñu jàng ci ñaari wàll yëpp ñu ngi ci ñu jàng ci nasaraan ak ñu jàng ci côté diine ji ñu xam ne complet dañuy dañuy dañuy mottalente rek mbir mi ndax sëñ bi euh, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu xam-xam yëpp lañu ñu digaloon ñu jàng ko daf ñoo waxoon nañu sàkku ndax wa kullu ilmin bi manafia yafi xam-xam bu ne rek am na ay njëriñ te ilmu kullu shay'in afdalu min jahlihi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon xam-xam bu ne ñu xam ko moo gën ñu réere ko te sëriñ bi wàllu gone rek daa war a am ñu ko fay xidmaal kon mbooloo mi bu ñu àndee sëriñ bi mi ngi leen di gën a soññ bu baax ñu gën a jàppante rawatina ki ko doon présenté bi muy tudd objectif am bi mu ci njëkk a tudd mooy jokkale ak mbokk te ku ne xam na ne jokkoo ak mbokk lislaam li ci yonent bi sallallahu alayhi wax bari na lool wax ne bi suñ borom bindee ak mbokk bëgg koo wàccee ak mbokk dafa jooy mu ne ko looy jooy mu ne ko dama xam ne soo ma wàccee ci suuf nit ñi dinañ ma dog suñ borom ne ko xanaa kon dina la doy su ma la wàccee ci suuf ku la dog ma dog ko ku la jokk ma jokk ko kon ak mbokk lépp luy xëcc ci lu koy jokkee rek loolu lislaam da koy digle ba tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laa yadxulul jannata qaati'un képp kuy jokk ak mbokk képp kuy kuy dog ak mbokk du dugg aljana loolu liñ ciy déggee mooy safaan bi mafhumul muxaalafa bi mooy kon kuy jokk ak mbokk ci waa aljana lay bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ne sil man xataaka wa ahsin ila man asaa ilayk képp ku la jokk na nga ko jokk ku la jokkut na nga ko jokk ku képp koo xam ne dafa ñaawee jëme ci yow na nga rafetal jëme ci moom loolu na lañuy lañuy la ñuy lijjantee ak mbokk maanaam lay sal waasilu bil mukaafi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon bu ñuy wax jokk ak mbokk bokkut ki ma naan sëñ bii sama mbokka bu ma dee woo téléphone dinaa ko woo bu ma dee message dinaa ko message su ko deful duma ko def loolu fayante la waaye bokkut ak jokk bokk bu ñuy wax jokk bokk mooy ku la jokk nga jokk ko ku la jokkul nga jokk ko euh, Cheikhul Xadim radiyallahu anhu lim ñu digal ci ak mbokk am na bis mu dajalee mag ñi ne leen ñett a ngi nii yoo xam ne mbokk mu ne mën na koo def mbokkam waaye ñett ngi ci wet yoo xam ne menn mbokk mënu koo def mbokkam ne leen mbokk mu ne bi ci njëkk mooy mbokk mu ne mën naa mën naa gën ay mbokkam mën na leen a gën waaye mënu leen a génn ne leen ñaareel bi mooy mbokk mu ne mën ëpp ëppale ay mbokkam waaye mënu leen a ëpp loo mën a amit mënoo ëppale sa mënoo ëpp say mbokk ne leen bu mujj bi mooy mbokk mu ne mën naa raw ay mbokkam ci xam-xam waaye bu àndut ak ñoom aw doxiinam du rafet kon loolu li li ci li li liñ ciy jàngee rek ñun taalibe yi mooy ak mbokk dañ koy sàmm dañ koy jàpp ngir xam ne kenn ku ne suñ borom moo la tànnal ñi nga xam ne ñooy say mbokk kon sëñ bi mu ngi leen di soññ bu baax di leen gën a soññit ci xam ñu gën cee góorgóorlu ginnaaw ay jàngkate ngi fi suñ maam yu baax yi nga xam ne ñooy darmanko yi àndoon ak Cheikhul Khadim nañ jii ma fexe ba fiñ jaar ak sëriñ bi loolu ñu yaxal ko bind ko nañ ko bind ci nasaaraan wala ñu bind ko ci arab wala ñu bind ko ci olof fuñ ko bind baax na ngir loolu mën a doon lu fiy des ndax jamono ñu nekk jamonoy xam-xam la da ngay bind wala ñu bindal la te bu ñu la bindalee dañuy bind loo bëggut ci yow kon bu fekkee mbind mi am na nañ ko tasaare bu amut nañ ko tàmbalee loolu mën naa bokk ci objectif yi nga xam ne mbooloo mi mën na ko am mu gudd mu gàtt jërul may guddal oustaz wax na li fi waroon wax lépp ak fesal yéene sëriñ bi mu gudd mu gàtt sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax ci cëral gi ñu ko cëral ci bis bi di feddaliwaat kóllëre gi dox diggante Cheikhul Khadim ak suñu maam yi baax yi ne fii di ko di ko jokk ci njaboot gi nga xam ne ñoo fi ne di leen wax ne ubbil na leen ay buntam bu baax ci yëpp yëngu yu ñu nekk na ko yëg te xam ne moom kenn la ci biir njaboot gi waaye jàppul ne ab invité la bu fi ñëw waaye membre la rek ci biir famille bi ndax ñi nga xam ne ñoo toppoon sëñ bi ñëpp ñoo njaboote mboolem ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw li sëñ bi daan wax cheikh si ne leen saxaaba yi ñooy seen i bàyyi ci diine waaye cheikh si ñooy bàyyi murit yëpp ci murit gi dañuy topp ci ñoom rek kon fii kër la rek ab néeg la ci biir kër cheikhul xadim day mel ne dañoo génn ci mu nekk dugg ci mu nekk kon euh, ñu ngi ñaan bu baax barke bis yi ñu ne weer yi ñu ne nga xam ne mooy weeru tabaski bokk ci ñeenti weer yi yi gën ci at mi rawatina fukki fan yi ñu génn nga xam ne wax nañ ne at mépp moy fukki fan yi ci gën lu ci ab jam def ci lu bax dañ koy ful ba suñu borom di waat diko ko tudd ci alquran wal fajr wala yàlla lanche ba yëpp yoo xam ne jullit ñi doon nañ ko ci sàkku yàlla na suñu borom defal leen ci lu kawe seen jot ful ko ngën gi ful te may ñu jotaay bi ñu teewe ko ay déwéni déwén di sant bu baax ñi ko woote ndax bu ñuy wax ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahma bu ñuy waxtaane gaa ñu baax ñi yërmale suñu borom day wàcc rawatina nag fu ñuy waxtaane yàlla ak yonente bi ak cheikhul xadim radiallahu anhu ndax moom bi mu fi ñëwee ba nu mu fi jógee lu xettali nit ñi rek ci la nekkoon kon sëñ bi mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kàddu yi mu bëggoon ma wax ko yu gën a jub yii la sax yu gën a jot la waaye lu ci manqué rek ci man la mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm maa ngi jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëriñ Mamour Mbacke kàddu yi am na solo li ci sëriñ bi di yokk rek mu ne mi ngi nuyu sëriñ Mourtala Amar mi nga xamante ni si wëllëreem la ñu yàgg lool mu ne mi ngi koy sant bu baax a baax a baax kon sëriñ bi association ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci teewaay bi lii rek ab yëg la bu loolu weesoo dañuy wax invité yi nga xamante ni ñoo fi teew sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma mii ngeen gis ni teew na fi. ànd ak sëñ Abdou Lahad Mbacke teew na fi sëriñ Fallou sëriñ Abou Mbacke teew na fi sëriñ Lahad Ndiaye teew na fi sëriñ Khadim Amar ibnu sëriñ Mourtada Amar teew na fi ànd ak sëriñ Fallou Amar al Mourtada teew na fi ànd ak sëriñ Khadim Dior teew na fi sëriñ Cheikhouna Mbacke Sidi teew na fi sëriñ Mouhamed Amar ibnu sëriñ ibnu Amar teew na fi union des dax man ko teew nañ fi sëriñ Abdou Fatah Amar teew na fi ànd ak sëriñ Mama Amar moom sëñ ibnu ibnu sëriñ Cheikh Amar teew na fi sëriñ Ibrahima Amar almisbaax teew na fi sëñ Basiiru Amar teew na fi association xidma teew na fi association gàddi yàlla bokk teew na kon dañuy jël kàddu gi jox sëriñ Mouhamed Amar mi nga xamante ne sii moo fi teewal sëñ Axma mu am kàddu yu mu fi yëkkati kon sëñ. Mouhamed bala ngaa yëkkati dañu ñëpp commencé wax amin